bu ñëwee jullit yépp dundal ko rawatina fii ci toolub Sëriñ Tuubaa bi ci dëkkam bu tedd bi bu weer wi ganee ku ne xam ne ne danañ gis ci daara yi xam-xam yi jàkka yi ak kër yu mag yépp ak jàkka yi di ko dundal kër sëriñ Saalihu du benn ci kër sëriñ Tuubaa yooyu jàkka ji walla jumaa ji sëriñ bi moo ko tabaxoon ba joxaat ci Seex Beejo mu yeesal ko ñu dindi li fi nekkoon def fi liggéey bu mucc ayib bi liggéey bu rafet bi kon mu dénkoon ko sëñ Habibu mii nga xam ne moo ko yaral boppam defaral ko ba gërëm ko teg ko fi ba yàlla dogal Cheikh Béthio nekk ci liggéey bi ba yàlla dogal muy door noppi ci kii fi nekkal sëriñ bi muy sëriñ seex mu sëriñ Saalihu xafisahullahu waraa joxe ndigal ci ñu koy dundal fexe mu doon waajiha saqaafiya buy vitrine bu ñuy xame bu ñuy jànge buy wane njàngaleem Sëriñ Tuubaa mu jiital ci liggéey bi rakkam ju tedd ja Sëriñ Murtadaa sëriñ Murtadaa jiital jëw jëwrinam ji di sëriñ Habibu muy imaam ratib bi ñu taxawal ci ndigalam comité bu saytu jumaa ji ci ndigalul sëriñ Seex def ko ay pàcc yu baree bari ñii yor wàllu xam-xam gi ñii yor wàllu nos bi ñii yor wàllu lu aju ci xaalis beeg la ca aju ñii yor wàllu yeneen lépp rekk ngir bëgg liggéey bi fii sëriñ bi bëgg ci mu jëmmal liggéeyu sëriñ Tuubaa loolu mën a fës mën a ñu mën a wane liggéeyu sëriñ bi kon koor gi mooy koor gi ci jiitu bi ñu ibbee jumaa ji ak léegi euh, ni ko sëriñ seex bëgge rek mooy ñu koy dundal ci xam-xam ci ay conférence ay waxtaan wane sëriñ bi wane am njàngaleem wane lislaam wane njàngaleem yonente bi aleyhi salaatu ak njàngaleem sëriñ Tuubaa ci noonu ñu tànn ay borom xam-xam yu mag yu ñu naw seen xam-xam aleykum salaam wa ñuy ànd ak ñun di ko dundal ci ajjuma gu ne ci ñeenti ajjuma yi tey ñu ngi ko war a ànd ak al imam imaamu ratib al imam al ratib Cheikh Habibullah Diop moom nag ku neex a xamle fii la ndax mooy doomu yoon wi ku ñu wax ne doomi sëñ Mouhamadul Amin Diop Dagana loolu doy na sëkk màndarga doy na sëkk sa wàccuwaay ci yoon Sëriñ Tuuba ku ne baayam jébbal ko sëriñ bi muy cërub sëriñ bi ñu koy ndamoo bu baax a baax ku ne ci ku sëriñ bi yar dégg nga sëñ bi di wax ci ak tarbiya ak ni ñuy yare ba di ko tudd di tudd waajuram ba mu ko koy jox ne ko demal buñ la sàmmloo sàmmal bu buñ la liggéeyloo liggéeyal buñ la jàngaloo jàngal kon doomi soxna dafa mel ne buñ la tëddloo tëddal kon dafa mel ne doomi soxna bu ñu doon tàmbalee dañoo war a wax ne bu ñu la jàngaloo jàngaloo waaye digal li rek moo ci am solo kon nag fa lillahi alhamdu wal minna yàlla dimbali na ko topp na ndigal loolu fiñ ko jaarloo jaar na fa yem ci loxoy sëriñ bi sëriñ bi boole ko borom xam-xam yi gën a kawe. ñu nammi ko tàggat ko ci alquran ci xam-xam ba ñëpp doon di naw xam-xamam mu doon shaair bu mag a mag a mag doon kaatib bu mag a mag a mag di aalim bu ñëpp ràññee xam-xamam ba mu samp ko ci jàkka ji jumaa ji ngir mu taxawal ko liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi kon moom lañu war a àndal tey ji jataay bi war ñoo baaxee ab dars bu am solo ci lii ñu yàlla digal muy koor gi jële ca yàlla jaar ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam nu ñu ko sëriñ Tuubaa jàngale sëriñ Tuubaa mooy sunub sëriñ jàngaluñu lu génn lu dul li yàlla wax ak li yonent bi wax waaye jàngal nañu ko cënam gën a leere ci nam gën a yombee ci gën a dëppoog ñun kon lu jar ñuy dem fu sori nañu déglu li ñu sëriñ bi wax jàpp naa ne danañu leeral ay tomb yu kawe ci fiqhul ibaadaat waaye ci wàllug zaaxir ci wàllug la cay farta la cay sunna lañ ca sob naka jullit bi war a taxawee waaye dana ànd ak ñun ci ruuxul ibaada li tax yàlla farataal ko ci ñun ak l'esprit muy diggi diggi baatinu jaamu yàlla gi mooy wàllu tasawuf gi nan la ko ci Sëriñ Tuubaa jàngale muy tomb yoo xamee ne ku ko jàng xam ko bu baax a baax dana doon ab yóbbal ci ni nga war a kooree koor gu sell gu dëppoo ni yàlla digle ak yonente bi guy tax nga am ngërëmam kon euh, danañu dikkal tamit ci sëriñ tuubaa ci jëmmi boppam ni mu fonke woon koor ni mu ko doon dundee ak ni mu ko doon dundalee ci jamono yu wuute lu muy nekk ci géej gi lu muy nekk ci jéeri ji loolu lépp di wane moom mi ñu yaakaar gëm ko topp ko fi mu tegoon koor li ko koor jaraloon kon képp kuy woote woo ci moom képp kuy ne ab taalibeem war nga am euh, lum la jàngal ci doxinam ak ni mu fonke woon koor kon ñu gàttal bàyyi tunga nii du teew ñuy nataal borom xam-xam baa ngi nii toog dañ ko bàyyi mu ànd ak ñun ci lu mat ñeent fukki minute wala li waxtu yu maye bu ñu noppee danañ bàyyi sëriñ Maam Mor xam sa diine teew fii ci turu muxaddimatul xidma di ko ànd ak waa jàkkay sëriñ Saaliw jàkkay Masaalikul Jinaan euh, jàkkay Jannatul Mahwa liggéey bu am solo bi xam ne ci ñoom ñëpp ay këri sëriñ Tuubaa lañ di këri xam-xam dañoo war a àndandoo di jàppalante ci liggéey bu sëriñ Tuubaa moo tax ñoom ñi yor ñi sëñ bi sëñ saaliw moo ko digle woon ñu sos ko muy muxaddamatul xidma ba tey fi mu àgg ci liggéeyal jumaay sëriñ Tuubaa ji ñëpp a ko gis kon kuy tàmbale nag a tàmbalee ci ñoom moo tax ñoom lañ jagleel jàppalante ci bis bi gannaaw bu sëriñ euh, Abibu waxee ba noppi dana ci ñëw indi ay commentaire bu ñu noppee nag doole ñëw ci yeneen kàddu kon fa yatafaddal mashkuram sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam weer woo xam ni mooy weeru Sëriñ Tuubaa suñu yaakaar mu bëggoon ko lool fonkoon ko lool daan ko taxawee taxawee woo xam ni yéemoon na ñëpp yéemoon na àdduna bépp yéemoon na gan ñu daan ñëw gan ñu bari dañ ko daan wooral si bàyyi ko gànnaar di bàyyi ko fu ne waaye taxawaayam ci weeru koor ñëpp dañ ko daan yóbbaale seen di ko waxtaane muy lu yéeme yéemoo nit ñi mu yaroon ñu nekk ca kanamam nekk ca wetam daan ko liggéey li dem ba yëf yi dépensé leen ba egg ci yéem leen yéem goo xam ne day mel ne mosuñoo gis lu mel nii ndox ndax Serigne Touba dundam lépp xar baax la woon ñi ko wëroon li ñu koy miin miin bis bi set ñu gis lu bees bis bu set ñu gis lu bees loo xam ne di leen di yéem di leen di fàttale wala woon démb li mu woon ni mu noon kulliyati mu'jizatun loola mooy li am maanaam bis bu ne dana feeñal lu bees loo xam ne dañuy yéem ñëpp dana lottal ñëpp noonu la ko yàlla bindee woon euh, yàlla na ko yàlla fayal ci kattanu borom bi mu mel ne kon bis weer wii bu ñu ci waxtaan day mel ne waxtaan wi ci gën a am solo gën ci am sens mooy waxtaan waxtaane li ñuy dund booy waxtaane li wees mën naa am dana am ku mu yitteelut booy waxtaane li ñëwagut mën naa am dana am koo xam ne xamut li ngay wax ndax gisagu ko waaye eh, actualité li ñu toll di ko dund boo ci waxtaan ku ne dana déglu kon loolu moo tax waxtaan wi tey ci eh, ci saw mu rek lañ koy tarkiis ci koor rek lañ koy lañ koy def incha allahu taala ni ko suñu abu waxe ñëpp incha allah liñ ci mën lépp xam naa sax tënkaat na yu bari yoo xam ni e, sama xam-xam eggu ca waaye danañ ci def kem tulayil suñ kàttan incha allahu taala mu mel ne kon koor koor woor ci boppam la ñuy waxtaane woor nag a sawmu a sawmu baat bi rek li muy tekki lugatan mooy jàpp sa bopp ci dara lépp loo xam ne téye nga ca sa bopp defoo ko rek woor nga ca للو إن إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا سيدتنا مريم ba ko mbir ma dikkalee ba mu am gone ci kàttanu sunu boroom amul dara lu mu mën a wax ndax munu koo layal mu ne tey daal niséer naa duma waxe kenn damay noppi inni nazartu lirrahmani sawman niséer naa noppi duma waxe kenn falan ukallima alyawma insiyan duma waxe tey kenn nit ah ñu ñëw di ko laaj muy joxoñ liir bi ñu naa ko kayfa kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiyan naka la ñuy waxee ku liir bu nekk ci berceau liir ba daal di jël kaddu ga tontul boppam waaye moom la mu waxoon in inna docteur rahmaani sawmantera ni tontuwul kenn waxul ak kenn te bis ba lépp loolu mooy tekki ne saw moo li muy tekki mooy téye sa bopp ci dara rek lépp loo xam ni téye nga ca sa bopp ba defoo ko rek loolu sama war nga te loolu lay tekki lu ko tan fiq yi yan nag ci fuqahaa yi ñoo wax ni koor mooy bañ a lekk bañ a naan bàyyi muftaraat yi bàyyi yi nga xam ne ñooy dog koor bàyyi ko li tàmbalee fi fajar feqe ba fi jant bi soye ko bàyyee rek yëpp yow woor nga ay dal fuqaha woor nga bu fekkee bàyyi nga mboolem yi nga xam ne moom la ñuy tere mooy dog koor li ko tàmbalee fi fajar feqe ba bi so soo ko defee rek woor nga ci ñoom ñoom li ngeen téetum ca leneen fi fajar fexe nag waxuñu ngay lekk di lekk di lekk ba fajar fexe waaye lu mu ko jege jege jege fépp fépp sañ ngaa lekk même une minute même ay seconde boo ko jegee sañ ngaa boo gisee ñu naan nañ bàyyi juróomi minute nañ bàyyi nangam nit bëgg lu gën a wóor nga bañ caa tab bi loolu rek la waaye soo ko mënoon a xam man ngay lekk di lekk ba ca seconde bu mujj ko waaw di di di bu ko defee loolu mooy waxtoom fi fajar fexe mooy waxtoom ñu bari sax nee na boo dee sikki sàkk sax malite moom nanguwu waaye yeneen masaaj yi am nañ ko nangu bo même boo doon sikki sàkk man ngay lekk ba mu wóor la même boo doon sikki man ngay lekk ba mu wóor la di jot fayat yi nag dana booy sikki sàkk rek sañat koo lekk loolu moo gën a kon loolu mooy koor bu fajar feqe ba jant bi ba jant bi so ma boo fi bàyyee muftaraat yi rek yow yaa ngi yaa ngi ci koor bu ko defee nag indal muhaqqiqiina nag kooku nag moom day am yeneen yuy ñëw yoo xam ni mooy tax nga nga sag koor tudd koor te lool nag ci sëñ Tuubaa jàngale dëgg-dëgg yooyu bu dikkul fuqahaa ñoom tudd nañ la saayim waaye mu xaqiqoo na ñoom tuddewuñ la saayim ñoom dañ ñu wóoroo bu yooyu dikkut ñoom dañ ñu wóoroo même boo defee lii bu yooyu dikkul dañ ñu wóoroo kon mu mel ne ñetti mbir la yoo xam ni dañ leen di boole nag muy benn ndax bu ñëkk bi moom day dugg ci bu ñaareel bi waaye bu ñaareel bi mooy soxla bu bi moo koy soxla bu njëkk bi day dugg ci bu ñaareel bi waaye bu ñaareel bi moom mooy soxla bu ñetteel bi bu ko defee mu booloo di benn di koor gi nga xam ni moom la soxla moom la fuqahaa yi soxla moom la muhaqqiqoon yi soxla moom lañu bëgg waxtaane tey ak ni nga xam ne la ko Sëñ Tuubaa euh, waxtaanee jàngalee mu nekk nag kon ruknun min arkaanil islaam ci ñëw ci hadis bi di farata boo xam ni ci alquraanul karim ak ci sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam ak ci ijmaul ulama alquran karim sunu borom dana ni audu billahi min alsheitan irrajim ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun yéen ñi nga xam ne yéen a gëm waral nañu ci yéen koor ni nga xam ne ni leen ko warale ci ñi leen jiitu woon ndax leen ngeen am ragal yàlla laallakum tattaqoon dañ ko soxla ci kanam euh, daal di wax ne shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaas wa bayinatin min alhuda walfurqan fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu woor a ngi weer a ngi nii wu ñu tudde weeru ramadan woo xamante ni ci lañ wàcce alquranul karim ngir mu leer la nit ñi ngir mu jàngal leen ngir mu biralal leen koo ca xam ne fekk nga ci weer na nga ko woor muy nastu ci alquran nastan waadixan boo xam ni soxlawul beneen wax soxlawul euh, commentaire ak yeneen ay yu bari yu tegtal ne koor waajib la bu ñëwee ci sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu leeralal ñu li nga xam ni moom la alquran andi ndax moom loolu la ñëw li tubayyina dañ laan wàccal alquran li tubayyina linnaasi kon moom dafa ñëw ngir di fiwul alquran andi lu wax boppam waxam lépp ñu ngi ci alquran ndax addis li alquran koy firi moom mu wax ni buniya al islaamu ala xamsin shahadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaah wa itaai zaka wa sawmi ramadana wa hajji al bayti kon borom xam-xam yëpp xam kon loolu mooy wane ne mooy wane darajay koor ak tolluwaayam bokk ci juróomi ponk yi nga xam ne benn boo ci wedd lislaam rey la bu ko defee nag loolu moom kañ la kañ la la wàcc kañ lañ ko farataal ci jullit ñi bisub altine ñaareelu fan ci weeru baraxlu bisub altine ñaareelu fan ci weeru baraxlu ci atum gàddaay ga ci lañ farataal koor ci jullit ñi nga xam ne koor ga ca tege nga xam ne ca la badar xew mooy mooy koor gi njëkk koor gi ñu xare badar mooy koor gi njëkk ci lislaam mooy atum ñaar bi ci gàddaay ga xam naa badar Euh, fukki fan yaag juróom-ñaar lay tolloon buñ ci yeggee incha allah ko ko ci borom xam-xam yi dana tokki waxtaan ko ngir jullit yi yeewu xam li ñu nekk lan la ak ban valeur la am ak lu ko fi andi lay toll lu am solo incha allahu taala ko defee nag kon ba nga xamee ne war na ci jullit yi kañ kañ nag lay waar kañ lay waar lay waar wax ne mi ngi waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mi ngi waaw bu ñu dundee saabaan ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñu taxaw séentu bu ñu ko séenee weeru koor dugg na bu ñu ko séenu du bàyyi ba suba yaratul séentu weeru koor dugg dugg na bu bët setee ñu woor nag day lakk garis googu da ko ruyal koor day lakk googu da koy ruyal da koy ruyal mooy tax yow boo dee woor li ngay jël ci li ngay jël ci ci ci ci posan ci ci ci ji du bari bu duggee seere nga du am fu mu place génn kon loolu dong jar na di jar na te loolu moom bañ ko gisee bu yàgg la te ba fii toll ñu ngi ci yeneen njëriñu koor yeneen njëriñ yoo xam ni du ci sori euh, médecine yaa ngi waaye loolu rek jëful jal na jal na koor bu ko defee kon bu ñu demee ci taftiru saim maanaam dogloo dogal aji woor dogal aji dogal dogal aji woor ci woor ba ngoon jot ci woor ba ngoon jot nga jox ko lu mu lekk wala lu mu naan ba do ba dog euh, loola sallallahu alayhi wa sallam nee na man fa fattara fiihi saiman ku dogal aji woor ci weeru koor kaana maxfiratan li dunubihi nee na loolu day daal di dañ ko daal jéggal ay bàkkaaram te nag bàkkaar yi bari na lool waaye boo joxub tàndarma ak ndox mu mu naan ki wooroon mu dogee ko ñu jéggal la say bàkkaar loolu jar na bokk yi kenn ku nekk koor nga faggu loo xam ne du bokk ak la ngay doge bu dog jotee nga jox ko wooroon mu doge ko ngir lépp luy tax ñu jéggal la say bàkkaar jëna lu jata kon koor bu jotee lépp loo mën ci jëf yu baax yoo xam ne mën nga ko di jox ko war mu di ko doge loola bul ko sàggane ah. nekk na itqan li raqabati yi itam nekk na goreel ci ci baatam maanaam boo koor jotee nga jox nit ki woor lu mu doge ay xut lay doon ci yow ca sawara dafa lay góole dafa lay góoleel ci sawara loolu nag dafa naa loolu yi jar na lu ne kon kenn ku nekk jar na ngay faggu loo xam ne lii danga ko jox ki woor bu dog jotee mu mu mu dagg ko itqun li raqabati minan naar dogloo ko woor nee na sa sa sa euh, lay doon ci sawara bu ñu yeewoonu baat ci sa guub ñot di jëmee sawara tàndarma ba nga joxoon waaja mu mu mu doge mooy ñëw ni man kat maa man la joxoon kaw wooroon mu daga ko ñu daal di teg ci buum nga nga wàññi dem loolu bokk yi jar na kenn ku nekk bu koor jotee ngay fàggu loo xam ne danga ko dimbalee ñi nga xam ne ñooy woor nee na day waral it suñu borom màndal ko ca déegam boobu nga xam ne boo ca naanee duutoo màndi boo ca naanee duutoo duutoo mar ba ba ngay tàbbi àjjana boo ca naanee duutoo mar ba ba tàbbi àjjana kon Euh, euh, dog loo aji woor loolu rëy na am na solo nekk na it da it mu ci ni mu ko waxoon nga xam ni kenn du du la yóbbu sa wax la ñu lii itam benn sabal benn sabal boo woor ci weeru boo def ci weeru koor subhanallah sellal ko moo junniy sabal yoo def ci weneen woor weer wu dul woon ne bokk benn sabal boo sabal ci weeru koor mu junniy sabaal yoo def ci yeneen woor ñooy jaamu yàlla jinsi yëpp noonu la benn boo ci def ci koor moo ko yeneen yi nga xam ni mu ëpp na junniy yoon li nga xam ne moom la def ci kon mbokk yi loolu bu ñu ko tënkee dana wane ni koor euh, euh, lu ci waay jaar lu ci waay daj jar ko euh, bu ñu dikkee nag ci sunu wasila muy Cheikh Ahmadul Khadim ni nga xam ni ne fonke woon koor ginnaaw bi ñu ko jàngalee nii ba noppi ak ñu ko daan dundee eh, dafa waxoon ne shahru ramadaan shahri weeru koor sama weer la bu ma san jub ni mu koy waajale ñëpp dañ koy xam ñëpp dañ koy xam moo weeru gàmm mosuñ ma san ni mu koy waajale ñëpp dañ koy xam ci la daan ëppit ay gan ndax gan ñi dañoo xamoon ni ñaari weer yooyu saa suuf ñëwee sëñ moom jamaan nga fi fekk ba ba weer wi dee loo fi sax am moo tax weeru koor liñ ci am ak am ciy gan ak weeru gàmmu li ñu doon am ci gan moo ëpp naa di naan ñëpp ko ci xam ba nga xam ne weer yoo xam ne day yéeme boole ko mm, ta seetali barab yi ñu gën a buub barab yi gën a seetali barab yi mel na daal kuy teeru kuy teeru ci ci ci ci ci ci ci ci ci nun ñii rek day mel ne kuy teeru buur àdduna ni ngay def ni ngay waajee noonu la daan waajal euh, euh, weer yii ci xeeti ay ñam. xeeti ay bernde ci xeeti setal ca xeeti rafetal ci xeeti mm, mbégte noonu la daan noonu la ko daan waaje ba egg see nag kër jëpp njaareem kër jëpp seen adduna jëpp njaareem ci dàqoon ko ko loolu dafa naa boobu yàggul sax mm, fis na ñu bàyyi njaareem ne daan woore ndax ñi nga xam ne ni la sëriñ bi daan def ko loolu moo fa moom moom la fa bàyyi ginnaaw sëñ Bachir du ko dundal ginnaaw ñu ko fi dundal ba fii ñu toll xéewal yee bari jot amatul waaye ba fii ñu toll yàlla noonu la te noonu noonu ko defoon nga xam ni xéewal yi moo ko daan joxeel boppam comme ni ci guddi gaa guddi koy joxeel boppam woo ñu mën a woo xel li jox leen tàndarma xel li leen kafe ñu ñu dox jox leen ñam yu teey yoo xam ne moom di ko jëfandikoo ñam yu baax la daan togg yoo xam ne la fiy teg di ko jox gan ñi ak ñi nga xam ne ñoom lay jox moom du ko jëfandikoo moom bëgg bu xëyee kaasu ataayam bii ci kanamu nit ñi wax leen lim leen di wax bu duggaatee ci biir man naa am ay fan fani fan dara dugg ci gémmiñam te lay dugg ci gémmiñam lëf ci baraay lay doon wala laax laaxu daqaar buñ suukaru te ñaare bu ko togguloo bañ defar ko ba noppi buñ jël seen ndab la dañuy fekk rëddiitu baaraam rëddiitu baaraam lañ cee fekk ca ngay xam ne nit laa mel saa su wooyee nit ne ko dama barkeel xale bu demee loolu woon la ci ñu mel ne nit ci ni ñaari mu xam ni fii sëñ bi laa woo loolu loolu lay xam ne laa moom loolu lay xam ne laa moom waaye junni boppam moom koor bu dëkkee woon daa iman da daan toog sunnaam da daan toog sunnaam da daan toog sunnaam waaye du lekk du naan kooku euh, euh, du doomu aadama am na loo xam ne sax du du du du wax ñi ko xamoon rek ñoo ko ñoo mën a xam ci moom loolu ñi ko xamoon loolu moo moo tax ñu gëmoon ko façon gëmin woo xam ni gëmin su ko doomu aadama ndax liñ gis mu di ko dund doomu aadama du ñu dunde ñoom ña jonjoo woon ak ñoom ñoo xam ne woon xam nañ ne kii ni muy dunde doomu aadama du ñu dunde amul nag nuñ ko mën a tuddee amul nuñ ko mën a tuddee loolu doomu aadama ndax ko wax tey dong la man ba tukki mbaa mu rukkoo dong mu taxaw dong ba tukki mbaa mu yenu aras ba àddina tukki mbaa muy saxbaal ba àddina tukki lañ ko lañ ko digal rek la man waaye koo xam ne mbooleem xeeti jaamu yàlla yi malaayka yi mbooleem xeeti jaamu yàlla yi ah, awliya yi mbooleem xeeti jaamu jaamu yàlla yi lambiya yi mbooleem xeeti jaamu yàlla yi nit yu baax yi yëpp da koo dajale di jànkoonteeg moom benn bu mu ci jël dana ko defee noo xam ni ñi ci raw ñi ñi ñi ko gën a man mënuñu koo defee noona loola moo jaaxal la ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ko yëg doo taxoon ñu tudd ko kiimaan kiimaan ko tuddee boppam ndax kulliyati mujizatun taaxirat wa xayru xayratin ladayka duxirat loolu firnde lu bari ci aw bi ah jaaral ba di ajaban lil kaw nii kon ah, lil kaw nii kon loolu firi na lu baree baree bari ci melokaanam ndax suma lépp ci kiimaani yonente bi salallahu alayhi wa sallam yi mujj ñëw la ko yonente bi salallahu alayhi wa sallam daan dund lépp kiimaan la mu daan dund lépp kiimaan waxtu wu nekk muy def ni muy def ci kanamu nit ñi loo xam ni kenn doo xam lii na ndax ndax yu yéen nee na man nag sama jëmm ak samay jëf benn la ci yooyee kulliyati mu'jizatun mutaaxir loolu defe naa bi mbokk yi firi na sëñ bi kon day mel ne damay daal foofu sama kàddu jàpp na sax waaye fan yii yëpp dama xaw a xaw a jalaati ba jàppoon naa sax na tey du ma ko def ba joxoon naa sëñ boo ngànt waaye comme moom sama kilifa la mu ni ma daal jéemal rek jéemal loo ca def bu ko defee li ci des ñu mottali ko moo tax ma jéem ci di eh, kon eh, noo ngi si guddi yi ñëpp di